Cheikh Ibrahima Fall cheikh ibrahima fall mi ngi gane àdduna ci atum 1856 ci dëkk bu ñuy wax ture aatumaan nekkit ci tund wii di njib bi fall dëkk bii di ture aatumaan maamam ju ñuy wax aatumaan fall mooy ku ko sañcoon ture atumaan gi mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax ture ci suuf si di kayoor kii di maamam itam bokkoon ci njaboot gii di njabootuk dammel mënoon na yilif lii di kayoor kon cheikh ibrahima fall sëtu buur la waajuram wu jigéen soxna bu Ndiaye lañu koy woowe waajuram wu góor sëriñ Ahmadu Roqeya Fall la tudd Cheikh Ibrahima Fall am na ñu mu bokkal kii di soxna bu Njaay ñu ràññee ci ñaari doomu aadama ak moom muy ñett ku ñuy wax maam saaliwu faal moo sanc dëkk bi di daaru xafoor ño bokku ki di soxna saynabu njaay ak serigne ahmadu roqaya fall amna kanen ku jigen ku mu bokkal soxna saynabu njaay te ñu serigne ahmadu roqaya fall mi ñukoy wax soxna assu job njóobeen ginaaw bu soxna saynabu njaay liggeele ki di serigne ahmadu roqaya fall ba nopi dafa bayyi ko won ñëwaat nak ci njóobeenu belal wala ci dëkk bu ñuy wax belal job, ci keur serigne abdou khadir Jóob am fa doom ju ñuy wax soxna Astu Jóob kon Cheikh Ibrahima ñaar la bokk bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett soxna Astou Diop mi doomu soxna Seynabou Njaay la sëriñ Daaru Asan Njaay lañ ko joxoon mu am ci ku ñuy wax sëriñ Moor Astou Diop Njaay sëriñ Moor Astou Diop Njaay mi moo jur soxna Bintu Njaay Baay Faal mi ñu jox sëriñ Mustapha Faal Mbar bu sëriñ du Aminata Faal Cheikh Ibrahima Faal bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ Ahmadu Roqeya Faal mooy ki ko dalal lii di alxuraan ginnaaw bi nag yóbbu nañ ko kër nijaayam di njare njare googu ci eggalee nag lii di njàngum alxuraanam ak lii di njàngum xam-xamam ba gi yu fa lool ci wàllu njàngum alxuraan ak lii di xam-xam mu jóge njare kër nijaayam daa di delsiwaat nag ci fi mu cosaanoo di njébbi nekk nag ci ginnaaw waajuram wuñ wii di sëriñ Ahmadu Roqaya Faal di ko liggéeyal ci diggante boobu nag la ko ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim feeñu muy wër nag ko baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim kon nag ma wax leen maam Cheikh Ibrahima Faal lu ko indi nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul xaddim ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ci njere kër nijaayam ba mokkal lii di alxuraan delsiwaat nag ci ëttub waajuram di fi mu cosaanoo di njébbi faal ci kër waajuram sëriñ axmadu roqaya faal ci diggante boobu nag la ko seexul xaddim feeñu waaye nag muy wër lii di leer gi te xamul fu mu nekk Cheikh Ibrahima Fall fu mu yaakaar ni nit ku baax ma nga fa dem na fa di xool ba xam kii mooy seexul xaddim waaw wala déet noonu nag ni la ko toppoo ba mu jigi mu dem ci dëkk bu ñuy wax ñuy wax Ahmadou Bamba Sill ma nga fa woon bu Tayba Ndakaar Ahmadou Bamba Sill mii nag waajuram mooy sëriñ Ahmadou Ndumbe Maar Sill moo kii di Mamor Anta Sali mi waajuru Xaadim Rasul ñoo jàngandoo ci sëriñ Ahmadou Bamba Sàll bu Saalum bi ñu jàngee ba noppi keroog bi leen sëriñ Ahmadou Bamba Sàll di yeewi wala di leen ñaanal ñu dem da leen a dénkoon ne moom de macha allah xam na ne nitug yàlla la waaye nag nit kul kuy siiw ci aduna waye nak ñom ñaar ñi kenn ku ne da nga am doom jo xamni ni dal daal dana siiw lool bu sañoon nak kenn ku ne dal nga jël sa kenn ci sa njaboot nga duppé kuko noné mu ko waxé won ki di mamor ante sali ni la ko mamor ante sali défé ndax ni la jëlé ki di khadim rasool tuddé ko ahmadu bamba sall mom ki di serigne ahmadu ndumbe mar sil nonu la jëlé ki di ahmadu bamba sil mom duppé koko, kon ñaari ahmadu bamba yi ñoo bokk kuñ leen duppé cheikh ibrahim Ibrahima Fall nag bi muy wër Ahmadou Bamba Mbàkke ci Ahmadou Bamba Sylla moomu la njëkke ginnaaw ba mu fa demee nag ci dëkk boobu di ba ndaxaar ndax foofu la nekkoon def na fa nag ab diir di wër ki nga xam ne ni moom mooy Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim tegoon ko ko waaye daal xam na ne daal wuute naag lool leer gi nga xam ne nii moom moo ko feeñu ndax saa su ne leer gi mi ngi jolli te jolleewul ci kër Ahmadou Bamba Sylla moomu mujj gi nag Cheikh Ibrahima Fall bana fa kii di Ahmadou Bamba Sylla moomu di wër ku baax ki Sëriñ Tuubaa seexul xaddim dem na nag ci dëkk bu ñuy wax sànjara sànjara mi ngi ci wetu dëkk bii di bàmbay am na dëkk bu fa nekk bu ñuy wax njoos njoos googu ku ñuy wax sëriñ ma sàmba Faal ma nga fa ci tooli sëriñ Masamba Faal yooyu Cheikh Ibrahima Faal am na fa ab diir bu takkoo takku ndax ginnaaw gi jaaxle na te xamul fan lay wëra leer gi nga xam ne nii daal leer gaa ngi koy feeñu te xamul fan la nekk ndax fa mu yaakaar dem na fa ginnaaw bi nag jógewaat na ci dëkk boobu di njoos di wëriwaat ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi woon ci dëkk bu sell bi di mbàkke kajoor mbàkke kajoor googu nag xëy nañ suba kii di sëriñ tuubaa seexul xaddim yónni ku ñuy wax cheikh aadama géey ci sëriñ du bàmba silla moom ak kaneen ku ñuy wax sëriñ maxtaar ture yónni ku